depuis ñetti at jëm ñeent suñuy collègue ñoo ngi dajaloo ñoo xam ne yàlla ñu boole woon ci assemblée kenn ku nekk fa nga jóge kenn ku nekk ak parti politique ba nga jóge kenn ku nekk aussi sa ngëm-ngëm mais macha allah ànd ba rafet lool ñu mel ni ñu bokk ndey ak bàyyi mosuñu xuloo mosuñoo xiiroo mosuñoo jàppante ci dara ñii mag jiitu ñu jox leen cër jigéen ñi aussi ànd nekk benn ndaw yi aussi ànd nekk benn noonu la ñu ànd ñun ñëpp fu farata jógee ñu ànd ko président de la république jàppale ko na ko bëggee ci liggéey bi nga xam ne sant nañu ko ñun day douzième législature gàccee ngalaama lu ñu chartante woon askan bi def nañ ko def nañ ci suñu kemtalaay li ñuy chartante woon aussi président de la république def nañ ci suñu kemtalaay ca ba léegi juguñu ci loolu fu président soxlaa ñun amatuñu soxla ndax yàlla def na ay homme politique lañu d'accord mu jiite ñu kon nag nit bu amee kilifa fa mu joxoñ da nga koy topp su bëggee boo bëggee ndamam parce que ndamam mooy sunu ndam booba léegi nag ci liggéey boobu lañ am te jii ñu ñëpp feddale nañu suñu kóllëre ak sunu jokkoo ci moom mais aussi suñu jokkoo ci benn Bokk Yaakaar bi nga xam ni mooy kuréel bi lënkale ñëpp ñoo xam ne ànd nañu pour jàppale président de la république pour mu réussir mébét yu rëy yi nga xam ne ak sumb yu rëy yi nga xam ne sumb na ko pour lu jëmale Sénégal ca kaw ca kanam. Sénégal nag dafa am lu fi xew loo xam ni rafetul dañuy gis ci politicien bu ñu ko takkalee ndombal tànk bu ñu ko nangoo ci loxoom rek mu sol mbubbu opposant kon ñun dañuy wane ni ñun démb fi ñu tegoon sunu tànk ñun député douzième législature ba tey foofu la ñu nekk mun naa ko tënk ci ñaar nag. suñu nee mars 2012 mun naa ni engagement la ak continuité engagement mooy li ñuy rafetlu mooy constance bi nga xamante ni les anciens députés de la douzième législature dañu jóg bëgg a créer famille loolu yombul créer famille bokk nekk benn jàppante comme ñu bokk ndey ak baay am solidarité sunu biir bokk engagement te sax gis ni bokkuñu appartenance politique même sur le plan géographique bokkuñu fi ñu dëkk ndax ñii ngi ci région ñii ngi Dakar ñii ngi feneen donc ñu taxaw ci loolu ba tey mois de 2012 nekk famille famille boo xamante ni li ñu tax a jóg mooy continuer nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar sunu àndandoo boobu sunu mbooloo boobu nag. du tubaab naan dénomina dénominateur commun mooy le président Macky la loolu moo tax sunu ànd bi neex ndax dañu bokk am yéene fi ñu jëm bokk ki ñu gëm ak ki ñu bëgg a àndal. mars de 2012 nag mouvement de contribution la mouvement d'appui la am na ku ko wax sànq mouvement boo xamante ni dafa ñëw dooleel président Macky la ci biir Benno Bokk Yaakaar. Ah, li may terminer rek ndax du gudda ndax liñ fi war a wax wax nañ ko lu am importance mooy dañuy jëlaat engagement fii ci Tivaouane la ville sainte de Tivaouane fii di dëkku ñaan di dëkku diini di dëkku alxuraan mais ñu ngi renouveler suñu engagement ñu ngi réaffirmer suñu àndandoo ak président Macky sàll démb tey ak suba ci biir benn bokk yaakaar ñun waa mouvement des anciens députés de la douzième législature je vous remercie